mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyuwaat di leen gërëm bu baax tey jii ñu dellusiwaat ci 30 minutes crono nin koy defee saa su waxtaanee actualité bi ci diiru fanweeri minute ci solution info TV di gërëm ñi seetaan ñëpp di baalu ak ñëpp di leen ziar bu baax tey jii nag ñiy dikkaat rek ci nguur gu bees geek yenn ci dogal yoo xam ne jël nañ ko dogal yooyu nag mu doon lu ci am solo yoo xam ne sénégalais yi. ak euh, nguur gu fi mënta jaar euh, bi nga ñëwee sumb nga ko waaye nag sumb ko mu egg moo jafe mooy réduction des comptes léegi réduction des comptes wala réglement de compte politique loolu la ñu fas yéene waxtaanee waxtaanee tamit <coughs> lenn ci loo xam ne nguur gi war na ko mën a bàyyi xel pour ëllëgam parce que aussi tamit nguur gu bees ak li muy àndal mais aussi am na lu mu war a sóor pour que bu ëllëgee mu mën a am loo xam ne mun na ci téye parce que am na ay élections yu ñëw assemblée nationale bi ni mu tëddee ak yeneen décision yoo xam ne c'est des décisions politiques <coughs> parce que ñu bari dañ naan politique bi jeex na mais politique bi mënul jeex parce que politique mooy li la fal kon mënoo exercer pouvoir te defoo politique aussi ñu bari dañ naan non nañ wax leneen bu nañ génn ci politique bi mais pour mën a téye nguur gi il faut que nga politique loolu lépp dinañ ci dikk ak Bassirou Diomaye Faye ñoom Sonko ñoomin seen ñu njëkkee rek li jëm ci rapport Cour des comptes ak yenn ci rapport yu OFNAC ak yeneen ci depuis 2019 ak 2023 ñu tàmmaloon ñu nag loo xam ne bi Macky Sall demee ba egg ci nguuram war a jeex loolu kenn gisatu ko mooy yoruñu réew mi ak ŋàbbinu réew mi ñenn ñi ko yor ak ñenn ñi ko ŋàbb nan lañ ko yoree parce que nag nit ki bul la dénkee war nañ mën a di la saytu ñu lay saytu na veut pas dire que yaa def wala defoo mais war nañu mën a xayma nit ki li mu yor ak nu mu ko yoree parce que ñun suñu réew yi ci Afrique bari na ci li ko tardeel ci réew yoo xam dafa am gànjar ci suufam am lépp ñu waroon a tey jii dund dund gu nooy tekki waxuñu rek li jugee rek ci sunu suuf waxuñu rek li jëm ci impôt waxuñu rek li jëm ci ay taxes yoo xam ne tey jii dañ koy jël ci loxoy baadoole yi waaye aide au développement maanaam xale yi xaalis biy jugee ci bailleur de fonds yi ñu naan laan ay FMI ay banque mondiale ak ay yeneen bailleur yoo xam ne dañuy jël seen alal di ko dugal ci réew mi alal jooju ñun ñëpp dañoo yàgg toog di laaj alal jooju fan lay dugg parce que boo xoolee ñun sunu niveau de pauvreté ni mu toll man bëgguma sax ay chiffres. ñu naan noo ñi ñàkk ci réew mi nii lan toll ñi some nii leen toll ak yooyu déedéet nit ku ne na natt rek ñàkk gi ci réew mi ci boppam natt ko ci njabootam natt ko ci ñi mu dëkkal natt ko ci ñi muy romb di yenn saay yi ma ni Sénégal ñàkk gi lu koy firndeel mooy dangay boo demee ci rond yi dangay ngay fekk ni yalwaan yalwaan métier la te loolu lépp lu koy indi mooy réew moo xam ne dafa metti réew moo xam ne nit ñi duñ gis alalu réew mi ci jamono jooj nag mu am benn disparité wala bokk benn inégalité bu am suñu diggante ñun ak suñu élite bu ñu waxee élite bi moo ñi Sonko doon wax naan waa système bi ñoo xam ne tey jii bu réew mi ñàkkee xorom bu ñàkkee suukar bu ñàkkee ceeb bu ñàkkee diwlin bu réew mi bu ñàkkee xëy jafe-jafe yooyu ñoom duñ ci yëg dara parce que réew mi moo leen gàddul lépp réew mi moo leen gàddul lépp yemuñu sax su lu leen réew mi gàddul mais dañuy fopp alal réew mi di ko sàcc parce que yenn saa yi nga gis nit muy dund ak niveau de vie ak train de vie boo xam ne dangay xam ne lii du ay salaire yu muy am mais lépp ci lijjanti la koy am te liggéeyu fi lu fi kenn liggéey amu fi lu fi kenn amul te li koy dëggal mooy Thierno Alassane Sall bi mu demee ARTP ñu dénk ko mu nekk directeur bi bi mu ñëwee ñu pro wan ko salaire u directeur général bu ARTP Thierno Alassane dafa ne nit lan la mën a fayekoo lii ci réew mi looloo tax tamit am na ñoo xam ne war nañ di leen féliciter ñu mel ne Thierno Alassane Sall bi mu ñëwee moom dafa jàpp ni lii ci réew moo xam ne nit ñi danoo ñàkkee nii nit waru fii faye ko salaire bu toll nii ba mujj salaire ARTP moom moo ko wàññi te boo xoolee du moom dong direction générale yi ngay gis yu bari ci réew mi bari nag ñoo xam ne boo leen wooyee bëgg leen def ministre ñu bañ ñu bañ nga gis ay sociétés yi ci mel ne Dakar dem dikk ñu ni la la fay dugg ci xaalis liggéeykat yooyu du nga ko gis loolu la lay wax ci jamonoy Abdoulaye Wade ak ñoom Christian Salvé ak ñoom it seen ba fa ñoom Farba Senghor nekk ak yooyu yor ministre du transport xala scandale ya fa amoon ñu ne la président day jékki-jékki rek soxla cash parce que des fois ci état gars yi duñ bëgg muy am traçabilité moo tax ñu soxla xaalis boo xam ne xober xober lay doon boo digga mënaan cash ci tubaab mooy xobet xobet loolu bari na ci loo xam ne moo soxal suñu entreprise yi ba mënul dox ñooñu nag tey jii ñu dénk ñuy doxalee noonu at mu ne ñu ne IGE di inspecteur général d'État yi wala Cour de comptes wala li jëm ci nag wala yeneen corps de contrôle yoo xam ne ñi ngi ci réew mi nan dem seetu ñooñu seen ŋàbbin ak seen yoreel mais depuis 2019 loolu lépp ñu toog ci lan moo waraloon Macky Sall toog ci ba may fit ay ministre yu ci mel ne Moustapha Diop bi ñu dénkoon industrie xam ne moom yoriñam daf mel ne moom amuñu droit di ko seetu ci réew mi mooy Cour des comptes mus na def rapport parce que tey ñu tudd la ci rapport na veut pas dire que yow yaa def mais bu la joxee benn rapport. def la souligner la ci def la ci ay suggestion maanaam yu bari mais yow da nga war a tontu ci rapport mais moom bi ñu ko convoqué dafa bañ am na saaga ñu nekkoon Cour des comptes gis nañ fi Mansour fay ñu woo ko Cour des comptes mu dem ba jiñ leen leen ni maanaam kooru politique la maanaam cour bi politique la Cour des comptes la jiñ politique moom Mansour Faye te lépp bu ko sañee Macky Sall moo taxoon mu sañ ko ci koo xam ne da laa dénkoon transport bi infrastructure yi gën a rëy ci réew mi yooyu yépp nekk ci sa loxo mais tey jii militaire di BRT ak la fa dugg ci ay milliards mais loolu dafa jara a saytu dafa jar a saytu waruñu rek gis terre bi berte bi di daw mais lu war a saytu la. ba xam alal jin ci def est-ce que méngoo naag li ñu wax Ousmane Sonko dem na ci assemblée nationale taxaw ci wax ci lu bari mais ba tey ji furaas mi ngi mel ne rek ñu ne ñu mbir maa ngoog jël leen te tëj seen làmmiñ comme yéen parce que Macky Sall boo gisee ni mu doon waxeek ñun ci ay berte ak terre dafa jàpp ni moom soxlawu ko ñun ñoo ko soxla te wax na dëgg ndaxte bi mu jugee ci nguur gi ni mu def dem dëkki Maroc tafa fa ak paleem maanaam lu mu ñu doon wax mooy terre beeg berte bi yéen a ko moom yéen a ci am intérêt yéen a ci dem yéen ci dikk quoi mel na lu mu ñu mayoon kon tey jii alal jooju jar naa saytu ñu ne Mansour Faye ñu ne xaalisu Covid 19 mille milliards yu Covid 19 ci ceeb diwlin ci liñ daan dimbalee askan wi mais tey jii jar naa mën a saytu pour ñu xam alal jooju fan la dugg parce que Covid bi bari na ci loo xam ne waxuñu ko Covid bi moom. bis buñ ko audité woon mu bari na ci nguur gi ñoo xam ne seen tànk du ci suuf te jamono joo xam ne baadoole yi ñu ngi doon dëñee ak di gobar jaas yi ñi ñàkk seenuk liggéey ñi ñàkk seenuk lépp nga gis ay nit yu ci enrichiru Moustapha Diop mii ni wax la lan doon wax naan am na ci waa joo xam ne daan na dem di encaissé ji ci turam lu toll ci téeméeri milliards ci kopparu CFA maanaam téeméeri million ci kopparu CFA téeméeri million bis bu ne mu dem retiré quoi loolu journal yi fii yu bari bind nañ ko fii ñu revue de presse ko lu nañu wax ko mais booba ak tey jii ban suivi moo ci am ak ban topp moo ci am ci xaalis Covid 19 boobu lay ak marché yi nan lañ ko doon joxe ak kan lañ ko doon jox ak kan moo ko doon jariñoo mais loolu jot na mu leer pour que sax ñu féexal xolu askan wi xam ne lii mooy alal jën ci defoon beneen bi ci topp mooy démb jomaay wax na ko ci réew moo xam ne ndox. ndox ci àdduna bi droit la parce que mooy lu mënul ñàkk ci dundu nit mais ñun fii Sénégal da nga dem ba jàpp ndox luxe la quoi ñu xëy ñu ne nan dindi ndox mi ci loxoy SDE Sénégalaise des eaux dem jox ko seen o alors que ci marché boobu ñu jëloon mbir mi jox ko Suez di entreprise française mais jox bi leen ko jox li ci gën a doy waar mooy li li ñu SDE sénégalaise des eaux proposé pour la qualité de l'eau et la distribution et le transport moo gënoon a yomb ci poosu sénégalais yi ay ay forum social sénégalais ay ñoom Mamadou Minane Diouf ñoom ñëpp xeex nañ ci ba dee ñoom maître ma soxna kan kuréel yu bari activistes la société civile parce que eau enjeu la ci àddina bi am na ñu naan fii cinquante 50 ans. coow li nekkatul guerre pétrole wa gaz wala mais la guerre de l'eau lay doon parce que àddina bi day dem ba dañuy mujj xëccoo ndox ñun nag li ñu am ci ndox ba pare ñàkk ndox loolu la nit mënut a comprendre ci àddina dem ba tubaab yi duñ gàddul suñ ndox xoolal suñ code yi ay programme désalinisation de l'eau tey jii buñ ko tegoon tey jii bari na ci ay gox mais da ngay gis ñi gën a jege ndox mi lac de yi ñoo gën a ñàkk ndox te bu may wax ndox waxuma ndox mi ñuy naan wala mi ñuy sangoo mais eau potable lay wax mu doon eau de parce que day ndox rek pour ndox loolu taxul nit ñi wax loolu tax kuréel gi ñu ci taxawal dem conseil des ministres pour lijjanti loolu moom lu jar a def la dangay ngay xool ci dëkk kaw yi fii ñun waa Ndakaaru sax tane nan mais am na ci ñoo xam ne tey jii na fa ndox seeree mais seerewu ko Dakar ala ko ñoon seen revenu moo gën a faible ñi gën a ñàkk ñooy gën a fay ndox ci Sénégal loolu na la xel nangoo ci forage boo xam ne yow dë dëkk ba nga dëkk fa la nga ko bët def ko fa léegi ñu ñëw dénk ko app société privée boo xam ne tey jii ña nekk ci dëkk kaw yi ñooy gën a fay ndox exemple Touba duñ ci dellu siwaat yooyu yëpp ñu war ci taxaw loolu tax tey ji li gars yi doon wax naan ab le président du monde rural mooy Jomaay Fay maanaam Jomaay li ñuy wax ni moom di ko dund moo tax ay sumbam yi njëkk mu njëkk ci taxaw ndax ndox ndaxte ñi nekkee ci dëkk kaw yi loolu mooy seen problème yi gën a taxaw kon kuréel gi ci taxaw ngir saytu ndox mi da cee loolu nag tamit bokk na ci li ñu war a gëstu ci Mansour Faye am na benn vidéo bi ci Ousmane ko defoon pour ne Mansour Faye li nga ko dénk lépp loolu tax moo yey bin daanoo mu dem di njëkkante ji OFNAC OFNAC mus na ko convoqué Mansour Faye ne moom demul OFNAC dem waruñu maa lan moo changé ci diggante bi mooy Mansour Faye mi bañoon ni di dem OFNAC moom la ñu filmé mii dem OFNAC di yor ay dossier parce que Macky Sall la di nga sàcc bu amee fit rek dafa am ndey jigéen ñi fi jën sàcc ci réew mi yëpp fit wi nu amoon Macky Sall moo la ko may ji nga Cour des bi mu lancé woon na fi benn rapport xam nga lan la président Macky Sall wax non rapport yi génn na léegi nag bu génnee ba pare balaa ñuy taqal diw wala ñuy setal diw léegi dañuy créer benn commission boo xam ne léegi bu Cour des comptes dafay liggéeyam ba noppi le président de la république Macky Sall moo ne mooy créer commission commission boobu mooy lijjanti liggéey Cour des comptes li mu ci jublu mooy aar ay nitam. yi fopp alalu réew mi kon ñi doon sàcc ci réew mi bu dee sàcc nan ki leen doon sàccloo est-ce que du Macky Sall nan ma baal ci kàddu gi parce que moom moo fi taxaw ne ay directeur général am ku ci perte sa gox ma dàq la directeur général ñu fal ko pour mu liggéey élection jot nga ne ko ku perte sa gox ma dàq la mooy kon tey jii bu la neexee nga utiliser direction ak alal jox ja ne pour mën ko politiquer pour mën a gagner kon yow xoolatunu résultat wu la ngay liggéey xoolatun lool de résultat wu la ngay liggéey mais yow ñu ngay xool lan nga ko mën a indil ci wàllu politique kon tey jii ñu rapport 2019 ba 2023 ñu indiwaat ko comme ni ko Forum Civil waxee lu jaadu la parce que nag golo du bay baabu di dunde ñun suñu réew ñun ñàkkee jaaduwul wax naa ko bi may tàmbali li fiy dugg ci alal ak li fiy meññ ak li fiy am yëpp ñu ñu continuer di gën a ñàkk mënul ne da ngay gis punkal mu am 40 ans na la xale laa parce que amul jabar amul xaalis amul kër amul lii alors que boo demee dans les pays développés quelqu'un qui vingt cinq ans mais daf ci am yoo xam ne mooy suñu invité bi li mu doon wax démb daf ci am yoo xam ne du luxe mais nécessité la nit am jabar nit am kër nit am oto yooyu yooyu dafa normal mais disparité boobu lan moo ko indi parce que égoïsme la parce que ñenn ñi danoo jàpp ne ñoom danoo war a nekk ci kaw rek ñeneen ñi nekk suuf te loolu du sotti nguur gi li mu war a gën a lijjanti loolu ci la dama mës a ànd ak sama benn xarit ñu dem Almadi bi ñuy wàcc élection yi biñ nekkee Almadi guddi gi ñii ñibbisi. am lu ñu fa doon dox doxi oto bi jóge almadi almadi leer nga gis sécurité bi même ñun fi ñu tax woon sax ab policier dafa ñëw sivilu ñëw nañu loo leen def fii maanaam nga xool almadi nu mu amee sécurité ñuy wàcc di wàcc looy gën a wàcc rek sécurité bi di gën a wàññi wiñu lumière bi di gën a wàññeeku almadi guddi comme bëccëg ma ni sam waa ji di nga lii nguur gu ñëw te mënoo ko lijjanti doo fi yàgg mënulaa ma ni ko dafa am ay sénégalais yoo xam ne ay privilégié lan maanaam am na nu lépp mën na lépp teg ci réew mi continuer di leen yoral seen sécurité di leen yoral seen jàmm di leen yoral seen sàmm seen lumière rek lépp ñu am ko man ko plus que ngay wàcc ci banlieue bi ma ne ko sécurité di gën di wàññeeku sécurité lumière di gën di wàññeeku mooy wane ni ñii danoo war a nekk ci kaw ci donkaasi gi di nguuru mais ñii war a taxaw di xaar man ko nag boo gisee à chaque fois ñi nekk ci kaw bu buñ fi defee cinq ans wala dix ans rek askan yu bañ leen li moo ko indi parce que askan ñu kon ni di dund li ñuy dund maanaam ay pauvres di enrichir ay riches looloo tax li Diomaye ak ko taxaw akamaa ci ànd waaye na continuer lu tax ñu ne na continuer ji nga Covid 19 bii ñuy wax ñi ngi wax ay mbiri ceeb ak yooyu. mais am na ay agents de santé yoo xam ne proposition yu leen def digaloon ba léegi defuñu ko dañ leen doon wax naan xaw ma test xaw ma ñàkk bu ne dañ leen di fay mille ba tey jii man maa ko vérifié dem waxtaan ak ay nit am na ñoo xam ne ba léegi gis ñu alal jooju te alal jooju alal la jun génne woon war ko fay agent de santé yi nekk ci poste de santé yi ak district de santé yi ba tey alal jooju lekk nan ko te ñi ko lekk ñu ngi fii ci réew mi ci xaalis Covid 19 Covid 19 ay milliardaires la créé. ma noonu mu créé ay milliardaires noonu la créé ay pauvres ñi ñàkk seen xëy ñàkk seen liggéey ñàkk seen wér-gu-yaram ñiy dee mais am na ci ñoo xam ne ci leen jaaree am li ñuy am te ñi nekkoon ci santé bi dem di nekk en contact avec les maladies parce que ku ne mi ngi doon toog këram di lijjanti boppam di xool nan lay musee mais ñu doon nekk ci le terrain di fajaate am na ñoo xam ne ba tey ji seen xaalis génnul mais loolu waruñu ko leeral ah kon loolu lu ñu war a sàmm la lu ñu war a leer. léegi nag ñi ngi génne ay scandale li nga réew mi li fi nekk ca scandale yëpp billaahi ministère boo dem ci réew mi boo fa demee tey ji buñ ko audité billaahi ñi sàcc réew mi yëpp jomaay munu leen jàpp mu loolu mun naa ko waat da ciy jéem nag lu mu mën te lii bu amee dafa am ay complice mooy la presse parce que ci jamonoy Wàdd mais rapport bu mës génn ci dëkk bi mais presse bi moo koy njëkk a gaaral reeteet ko ba ñëpp yëg ni diw def na mais tey ji ban journal nga gisati tey ji ñoo na rapport ARMP rapport Cour des comptes rapport CENTIF ci blanchiment d'argent blanchiment de capitaux rapport nag mais presse bi na ci nem jël lépp teg ci tànkam te li may wax dama ci am preuve dafa am benn journaliste dem si yàlla Serigne Saliou Samb yàlla na ko suñu borom jéggal mu doonoon ko jàmbaar maanaam am xam-xam da nekkoon jàngalekat mais jiite fi ay yéenekaay yu bari ay yéenekaay yu mel ne réew mi L'Obs bu ma juumul mos na def sa stage Walfadjri décédé na léegi sëñ Saliou am na benn rapport bu mës a bu mës a jot ci ARMP xaw ma Cour des comptes je plus yaakaar na ARMP la autorité de régulation des marchés publics mais am na benn journal bu mu nekkoon mais sëñ Saliou bi mu génnee rapport presque looloo ko jëlee ci journal da nga ko dàqoon da nga ko dàqoon alors que moo jite woon journal bi parce que nan la jotee ci rapport bi ak na la ko génnewee parce que dañ ciy lëngaloog ak ñenn ci patron de presse parce que le journaliste sax il veut faire son métier mën na am bëgg na ko def bu jotee ci rapport bëgg na ko publier mais buñ jaaree sa kaw kilifa na ko rapport bi. parce que le journaliste même bu génnewul rapport tam mën a ay sources am ba jot ci yenn ci kayit pour bëgg ko génne mais bu ñu jaaree sa patron ger ko na ko noonu lool bu mu génn rapport temps temps du génn te rapport yi mës di génn ci réew mi yëpp presse bi moo ko daan siiwal loolu tax la presse est complice sàcc ko ànd ak moom rek yéen a bokk àtte gi nga réew mi bu ko waree defar ñëpp dañuy taxaw maanaam jub. jubal ak jubbanti ni ko jomaay di waxee léegi nag jomaay ak sonko gor ca wax ja parce que ñoom noonu la ñuy doon doxee loolu leen jaay sénégalais loolu leen gëmal sénégalais yi Ousmane Sonko looloo ko jëlee impôt domaine mooy jub jubal ak jubbanti waaye yàlla nattu ko mu séq ak ñoo xam ne dëng dëngal ak gën a dëngal ñu jële ko fa tey jii nag jamono atte na ko ak ñooñu kon tey ji li muy def warul doon lu bett kenn ndaxte mooy limu ñu jaay parce que moo fi njëkk a génn di ñu wax mbiri impôt ñii di fay impôt ñii di ko fay waa bitim réew yi ñu leen di baal impôt di ko fayloo waa réew mi parce que fi marché yi ngi fi gis ci réew mi yépp waa bitim réew mi yor ko mais bari na ñoo xam ne dañuy dund exonération fiscale ci jamono joo xam ne ndool yi ci réew mi ñoom dañ koy fay dañ koy fay te loolu du yoon kon loolu war a nañ ci taxaw léegi nag lu jafe la parce que système bi doon lu fi def 62 ans wala 64 ans du da ngay ñëw rek lijjanti ci ñaari fan wala ñett. am na doole doole joo xam ne tey jii bu Ousmane Sonko ak Diomaye amul parlu rek lu bari liñ jàppoon mën nañ ci génn parce que Macky Sall amoon na volonté leeral lu bari mais lan moo ko ci génnee mooy politique mais ku jubul aussi mënoo jubanti kenn parce que Macky Sall mënul def de de de mënul def quelque temps ci nguur xëy na am naa huit milliards ñun ko foo ko jëlee mun a les largesses de Wade waaw man loolu ay waxi caaxaan la. loolu tax Macky sàll nguuram même bu ñu gëm la woon ni mën na jubal sax mënul woon jub yow falagul la nga wane huit milliards kon kooku yaa problème mais ñii danoo wane ay loxo yu set ne bu ñëwee dinañ jub dinañ jubal loolu Abdou Diouf namoon na ko ci mbiri CREI ndax moo créé woon CREI yi mais fan la mujj dafa tombé à l'eau maanaam mujjul tobb mbir mi ba mu sës lan moo waraloon loolu politique beneen bi ci topp Abdoulaye Wade bi mu ñëwee tey la même chose bëggoon na jub jubal ak jubbanti mais lan moo waral waa parti socialiste yu ñu doon tudd ci yenn dossiers rawatina les licences de pêche mu doonoon dossiers yoo xam ne ay kilifa yu mag ci réew mi yàgg na lañ cee tudd jaay géej gi jël alal ji def sa poos ba tey ji géej gi mënatuñ ko jariñoo loolu ci njaw parti socialiste lu jugoon Abdoulaye Wade bi mu ñëwee bëggoon na ko lijjanti mais lu waral lijjantiwu ko ba ni mu fi jugee parce que am na yu xewoon yoo xam ne tey ji ci jamono amoon na ku ñu doon wax Pape Ousmane Diallo mu jiitoon Sodeva bokk na ci ñi Abdoulaye Wade njëkk jàpp mais après fi mu mujj dafa mujj ñàkk bakkanam bi mu gaañoo après daf mel ne ak condition yi mu gaañoo woon parce que ñu bari ñu ngi doon posé ay question est ce que mort naturelle la est ce que du mort naturelle loolu amoon na fi maanaam jamonoy 2001 yooyu Ablaye Wade nekkoon na ci yéene pour topp les socialistes mais lan moo ko ci génnee nit ku fi nekkatul mënoo di wax ci moom mais exemple la bu ma joxe boo xoolee ñoom Ousmane Tanor Dieng durant Ablaye Wade fi ne opposition bu nooy lan ko tegal ba Wade dem est ce que nekkul woon ni le Tanor doon wax mooy une opposition républicaine opposition républicaine mooy lan. mbir yaa ngi nii dossier yaa ngi nii rapport yaa ngi léegi nañ yeneen xool loolu tax boo xoolee socialistes yi ñenn ci ñoom xam li xew peut-être ay Barthélemy ay ñoom euh, ñenn ñi ñoo doon ñoo radicaloon mais le vrai socialiste yi nekkoon ci système mu parti socialiste bi ñëwee seen diggante ak libéraux yi dañoo teg seen dànk des fois ci wàllu politique dina am ay compromis ak ay compromission yëngal yenn dossiers yi pour gars yi. mën leen ko chantage mais pour mën leen ko nappee ba bu naree yëngal bu naree opposé duñ opposé parce que tamit opposition bi Diomaye nara bu buñ opposé woo lu tax muy jafe mooy opposition bu am alal la mooy ay milliards la ñu yor mën nañ di manipuler te nit Sénégalais yi dañoo bëgg xaalis Sénégalais loo ne mënuma ko defloo rek daf fekk tegoo alal ci loxoom loolu aussi il faut que ñu bàyyi ci xel mu bañ a doon rek règlement de compte politique boo xam ne dañ koy teg pour que nappee ko ñenn ñi mais aussi pour mën a jàllale seen politique à l'Assemblée nationale ak yeneen parce que boo yëkkatee ay dossiers am na ci ñoo xam ne tey jii lanoo def mooy ah sama dossier mi ngi ñëw léegi xaaral ma ni teg loo tax boo xoolee ba nguur gi faloog léegi pour nga gis opposition bi dans les plateaux waa APR yi ñuy wax wala les anciens ministres doo leen gis. parce que ku mu ci ñoom yaa ngi xalaat yor dossier boo xam ne mën nañ ko yëngal loolu yaa ngi koy xalaat kon tey ji yëngal yi mën na jur lu mel noonu parce que fii rapport yi ñu fi mës a tudd yëpp publier ko amul suite dan koy topp ba benn jamono rek ñu ne nañ ko teg ci suuf te loolu exemple bi am nañ ko ak le président de la république Macky bi mu ñëwee taxaw ne traque des biens mal ak yi jàpp Karim wàdd mais le procureur Aline Badara Ndaw wax nanu ko la procureur nee na Macky bi mu jàppee ñenn ñi moom mu dem na ko ñii seen dossier ceci ou cela mais le procureur nee na Macky def na ko noo jaru nga leen di jàpp léegi na leen xuuxal rek pour que ma am fu ma leen téye ci wàllu politique ça c'est Macky Sall boo xoolee vingt cinq personnes yu ñu tuddoon ci CREI yi ak traque des biens mal mais cinq benn nit rek lañ ci jàpp mooy Karim Wade ak le président kii nu mu tudd ki jiite woon cadastre euh, euh, ñoom ñëpp mais après fa la mujj Karim Wade rek lañ ci faagaagal sur le plan politique ba déggatoo ko ci dara mooy tey bu njaay moo jiitoon cadastre après Karim Wade ak ay prête noom ñoom pap Pape Mamadou ñoo ñoom euh, waa ji nekkoon le patron wu tele bi ay ñoom Cheikh Diallo ñooñu lañ daan tudd mais après. Karim rek moo ci loru sur le plan politique parce que euh, mbir mi du woon pour leeral mais mbir mi pour bloquer quelqu'un la sur le plan politique te tey ji loolu moo topp Karim Wade ba tey ji ak ni mu génnee réew mi yépp kon rapport yi warul doon rek loo xam ne da nga koy teg pour nappee ko ñenn ñi ci politique pour que ñu dem toog wala ñu rangé wu parce que aussi la transhumance du rek nit ki bàyyi na parti dem ci parti parce que ñu bëri mais jubar yi moo tax ñuy transhumé mais am na ñoo xam ne duñ transhumé seen silence la ñuy jaay mooy man mun naa noppi génn ci géew politique bi duma ma defati du ma dindeeti doo ma gisee ci tele doo ma dégg ci rajo mais dinaa la jàmmal mais danga may jàmmal ñoo xam noonu lañuy def am na ñoo xam ne dañuy def médiation penal mooy sàcc naa li te bugguma ñu siwal ma ci rapport léegi ñu def médiation pénal xool lan lan mën a dugal ci xaalis bu dee cent milliards lan sax joxe quatre vingt yi wala ñu joxe quatre vingt dix yi mën a tëdd ci dix yi loolu tax loolu tax ñu naan arrangement bu bon moo gën procès bu baax kon tey jii rapport yi enjeu bi mën na nekk bëggumu leer mais enjeu bi mun a am ay enjeu politique te loolu xaaruñu ko ci Jomaay xaaruñu ko ci Sonko te gëm naa ni duñ def loolu mais il faut ñu fàttali yi fi jaaroon ci ay nguur yoo xam ne jaaroon nañ fi mbirum Mame Mbaye Niang il faut que ñu wax ci mbay Mbaye bëreet mu génn ne damaa set Cour des comptes setal na ma mais mbir mi set du ci télé yi ak rajo yi ak caméra yi internet du euh, bi mais du tribunal du tribunal kon li Mame Mbaye def pare ni amul benn rapport ñu génne ay vidéo am yi dëggal ni waxoon na ni am na rapport ci rapport boo xam ne tey jii waa IGF di inspection générale des finances ki ko commandé woon le ministre Amadou Ba ba mu ba tey jii moo yàq digganteem ak Amadou Ba ba ni Amadou Ba sax nekkee candidat Mame Mbaye nanguwul ci jàpp xëy na rapport boobu amul rapport boobu Clédor Sène taxaw ni bi ñuy àttee mbiri Prodac Clédor dem na taxaw ne témoin la bu mu wooyee ma ñëw. leeral yor ay dossier ba tey jii te Clédor Sène kenn dégluwu ko ci patam patamee àtte bi loolu la suñu justice bi buñ paree war nañ ci wax patam patamee àtte bi dóor li ñuy dóor Ousmane Sonko dem seen yoon Mame bay taxaw fii yëpp ñu yëpp gu taxaw ni ne rapport boobu amatul te Abbas Fall avant Abbas Fall taxaw na assemblée nationale yor ne rapport baa ngi nii en tant que député Abbas Fall bu bu fàtte loolu. vingt neuf milliards la ñu wax Birahim Seck bu premier Forum Civil bind livre bind livre livre boobu moom waxul sax vingt neuf milliards mais trente quatre milliards la wax affaire Prodac te Prodac bi bu dee ni alal ji ñuy wax ci Prodac bi def nañ ko ci mais ana dag yi domaine agricole communautaire yi ñi xam dara ci mbiri agriculture nee nañ projet bi gën boobu amul ci nguuru Macky Sall ci wàllu xalaat ak xel ak jox ndaw ñi liggéey parce que dag yi xale yoo fa doon liggéeyee bu doon ni tey jii projet bi jaar na fi mu war a jaar xale bu ne li ngay njëkk di liggéeyee di nga fayeeku cent mille francs li meññeef gi di génnee ci tool yi di nga ci am mbaqu su koy def sa poos beneen bi topp mooy di nga am logement fa nga nekk ak terrain ak la nga yëngul lépp maanaam programme bu gën projet amul mais gars yi mandee ko ñoo taxaw fii bëgg duñu yàpp du yaay setal sa bopp mais yoon a lay setal mais bëreet ñu génn defuma dara man setal lan setal non c'est pas ça yombewul noonu parce que dossier bi dafa jur ku mel ne Ousmane Sonko nekk candidat ñu bëri yaakaaroon ni mën na nekk président de la République dossier Prodac bi moo téye Ousmane Sonko kon mun ñu xëy tey jii nañu dossier bi amatul woon mënul léegi kon tey jii mbir yi na leer kon taxawaay bii Jomaay taxaw Ousmane Sonko taxaw ko jub jubal ak jubbanti foofu la leen réew mi di xaar te loolu bis buñ ko defee gëm naa ni seen mandat gu njëkk gi réussir nañ ko waaye buñ ko échecgee jaar fii Senghor jaaroon ab Diouf ak Laye Wade mu ju mu juge mu mu njëkkee ci juge ci reddition des comptes mu jee ci règlement de compte bu boobaa sénégalais yi nan jàppe woon Wade jàppee ko. yi jàppee ko Diouf noonu rek la leen di jàppee te loolu xalaatuñ ko kon di gërëm ñëpp di leen euh, sant di gërëm élage Hadj Modou Diouf Abdou topp ak Abdoulaye Diallo Fallou ñu nekkoon ci régie bi kon euh, Omar Boun Khattab Gueye moo leen ko doon présenté euh, di seen émission 30 minutes chrono kon beneen alxamis rek incha allah ñu fas yéene dellusiwaat ci solution info di jégalu ñëpp di baalu ak ñëpp bu beneen yoon incha allah.